bu moom l'islam accepté wu ko te histoire bi tamit baaxul moo tax boobu mat na di alerte nit ñi di leen ko moytandikuloo nañ ko defee ci yi mag ñi jàngale rek mais doo fekk fenn fu ñu jàngalee na góor sol yëre jigéen jigéen sol yëre góor loolu dafa xaraam ci lislaam yonent bi nee na yàlla rëbb na góor buy sol yëre jigéen même buy kaf rëbb na jigéen buy sol yëre góor même bu ne damay comédie même bu ne damay nàngam bokkul ci ay valeur lislaam ah kon loolu duñ ñëw bu ci bis buñ lay digal nga sant yàlla yow ngay defee sant yàlla lu ñuy tuddee mooy yàlla man mënul nekk tëgg meeg fecc mi ñu ciy def ak yooyu yëpp bokkul ci loolu moom bu ñu toppee histoire am mu ngi bàyyeekoo ci ama ba nu amawiya banu amawiya banu umayyata ñi fi nekkandoor ak sëtu yonent yàlla Muhammad problème amoon seen diggante ba nga xam ne li rey Seydina Hasan ci ñoom la sababoo li rey Seydina Xuseyn ibn Ali ci ñooñ la sababoon borom xam-xam yi jàpp nañ ne ñoom faatug Seydina Xuseyn ñoom dañ ko defoon muy feet dañ ko defoon muy ndam dañ ko defoon muy victoire moo waraloon tëgg beeg fecc beeg góor sol yére jigéen jigéen sol yére góor moo tax boobu histoire bi baaxut te lañ cey def dëppwut ak l'islam boobu kenn du ko accepté kenn du ci euh, encouragé kenn xanaa dañuy alerté nit ñi moytundi ko loolu leen ñu xam ne loolu moom ci bidaa a bon ci nga am ci tuyaaba mais bàkkaar nga cay fekk moom daal boo ci santal yàlla ci togg ñam joxe jox sa waa kër ñu lekk ba suur santal yàlla ci ziyaare ji borom xam-xam yi ak yi ma wax mais pas ay tëgg ak fecci def ay concert wër di tànqal nit ñi yooyu yëpp bokkul ci nañ ko tere jaamu yàlla gumman di doon nag laa la wax soxna si atta aj màkka atta màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wasallam atta tam xarit euh, folklore dugg na ci nit ñi dugal nañ ci folklore nag yow du tax nga bàyyi lañ la ci santoon mais yow xamal fan nga cey yem ba yenn yi bu ko dépassé ndax alquran dafa am logique daf ne wa man arada an dhikri fa inna lahu maishatan dankan wa nahshuruhu yawma alqiyamati ama fi ma la yem boko dépassé rek dajeg loola naqari ñun buñu wa démé ba waccu yoon bi ci yoyu mo waral xale yu rër yi agresseur yi rax ci seen biir violé def yenen yu bon yoyu buñ ko yemale won fi ko mag ñi da yemale sunna yemale ko fi rek ben problème du am kon nañ yemale mbir yi fi ñu yem te fukki mbir yoog ñaar yooyu nga dégg na ñoom lañ sopp nga di ko def ci bis benn bu ci agression am amul benn bu ci tànkal nit ñi am amul xanaa lépp day nekk teraangay kese début à la fin wala xad karm naa bani aadama leneen loo ci rax lu dul noonu gis ci conséquence yi du jeex loolu rek la